ku tedd ki wut ab bunt def ci ak satala nga ko demal yët ma satala ga Cheikh Moustapha nee ñëw ne ca satala gi bunt ba topp ma dagaat ci satala gi bant bu ko attan geg ko ca doog a jël nag satala ga yët ko bi mu ñëwee ku tedd gegoon ba ko jëlee ananum def mu ne ko bunt bi day damaa topp mu wut bu ko attan sës ko ca doog jël satala gi indi Cheikh Moustapha ne ko ko ak sa Mouhamadoul lépp lu waaye di jël bala nga ko faa jële dangaa war a ba la ko war a wutu attan ko nga doog ko faa jële nee na ma dégg ne kon sëñ bi mi ngi may cax ci na jekk na ci dem beneen bi tubaab bi dañoo woo seex Moustapha ci njaarim boobu ku tedd ki mi ngi ne ko sa wayjur wii kat jëm nañ ko rey ci zahir ak ci baatin mënuñu ko léegi nag liñ ci xalaat mooy bis ñu ñàkk la daloon yónnantee dal ko muy wàcc ab liggéey su keroogee nag ñoom na ngeen lu ko jox région bu ñuy wax Lyon ca France ñun foofa lañ tànn pour denc fa sëñ bi Cheikh Moustapha nee na ma ñëw na cell ku tedd ki ne ko ana naan saxar yooyu lu ñu wax nee na ma kanaf kanafal ndax ku fi sa waajur nekk nga naan ko dañ ne boo fi jógee nee na daa neexut sëñ Modou nee na ma jëllale mu ne ko waxal am nga ci ndigal ma ne ko nee na mu ne ko dañoo wax ne bu sa borom defee coobareem ci yow naa la leen jox ñu yóbbu la France denc la fa sëñ Tuubaa muné ko mbàkke muné ko tuba bi tak na ma seuf na ma war rek a war gi nak moy ma jóge fi nga bañ ma defal sama bëgg bayyi leen ñom bañ yobuma France sama bëgg nak moy tuba mu du bis bisu xewé tuba la señ tuba ne ko tuba tubaab xaalis tuba tubaab kon loola mel na ni amna lu mu ko doon jangal señ bi ne ko nag fi jógee tuba bi yobuma France lima doon liggéey lepp dana nax say jaam ñi dee ëllëg tàbbi sawara gis naa ca ger la sekk 96 ci mbindum sëñ Rijaal sekk mi sëñ Tuubaa mujj seexal ci zahir mu ne sëñ Moodu Sara moo ko ko jox mu sottee ko ca moom mu bind ca wax ni keroog day sëñ Moodu Sara moo ne ko sëñ Tuubaa limal na ma juróom ne ma Mouhamadul Moustapha juróom yii day soo ma ko defalee danaa la juugal tapab càmmooñ loo nga xam ne sab ndeyjoor lott na ci jeexal ne ko su ma fi jógee nag ma yóbbu Touba te bu xat damm bu xat damm mooy bu coow am ndax bu coow amee tubaab bi ñëw te bu ñëwee daal ñu ma yóbbu ñoom fañ bëgg sa rakki bopp yi nga bokk ak man muy sama njaboot ji di samay doom bu ci genn jooy soxla ne bu sëñ Touba doon dund ma am nangam te defoo ko fa nga may denc muy Touba bis boobu yi ma fiy jógee juboo nag sama borom bu dikkee na nga ko woote ak màggal muy màggal Daaru Xuddoos di bisub sëñ Touba dëkk ma fa defal dëkk ba itam na nga fexe bu bu ko kenn moom ku dul ku fi nekk ku ma fi nekkal ku doon sama xalifa rek moom dëkk bii di Touba loolu itam mu ne ko maa ngi la koy dénk kon mel na ni loola mel na ne kon loola Serigne Touba defaloon na ko Cheikh Modou Moustapha al Karim cant bi ak bi nga xamante ne nii juróom yooyu nag jot na Cheikh Moustapha defal ko ko benn par benn ndax demuk Serigne Touba gi Touba Kayal la ko yëge waxtu suba te xewagut ci zahir waaye yëg na ko ci baatin Cheikh Moustapha di séddale ndékki li ba yàgg mu ne tekk waxatu woo sëñ Mor Jàndam mi jur maam soxna loo jóob ñu taxaw ca kepp paaru rab ga soo demee tuubaa Kayal da nga fa fekk kees googa te sëñ moo taxawoon dañ la koy won mu ne ko bi waxtaan ba yàgg ma ne tekk day daa am lu wax ak man loo nga xam ne lu mu ma mas a wax dëgg la te nee na ma day ñeen fukki at doto am kilifa ci sëñ baa njaareem ma jaaxal sama ñeen fukki at day juróom ñetti bis rek moo ci tegu nii fii may wax ak yow mu daal di ànd ak sëñ mat la ku ñu wax sëñ Maxtar si la dugg ci oto ba ak sëñ Mor Jandam jaar ñaaxeen altine ci guddi bër seddi plaata sëñ mat la ko woon naa tool àllarba bi teen koo xaar mu ne ko am ndigalul wéy njaareem daal di jaar gaawaan ca maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta bëggoon koo ganale ne sama taaw bu baax baa ngi ngan ngi ma daan tey jii la ko yàlla dogal seex Moustapha ne ko amoon naa yéeney toog waaye nag dama am yitte ju may doxi maam Cheikh Anta jox ko fa ak baa addiye mu jàll njaaréem boo demee kër sëñ Moustapha Mouhamed googee gànnaaru ko sëñ Touba moo nekkoon kër sëñ Modou Moustapha al Karim foofee la dal mag ñi fekk ko fi di ziyaare ak a masla da yàgg sëñ ma Lamine Diop Dagana ñëw ne ko war ngaa nemmiku ko tedd de ndax fan yëpp dégguñu bu yëngoom ba timis jotee la ñëw di nuyoo ñetti yoon ciy teggin kenn fayu ko mu yebal sañ man Lamine Diop Dagana mu laal ko ba xam ne sëriñ bi nekkatut mu Moustapha ñëw tiim ko tudd boroomam ñetti yoon siggi ne ana Cheikh Khadija mu ne ko waay ni nijaay Cheikh Amadou Bachir la mu ne ko ndax sëñ Bachiroo ngi fi mu ne ko daana génn de waaye fan yi mi ngi fi mu ne ko demal wol ma ko mu dem woo ko mu mu ne demal wol ma sëriñ Balla Coro ñu woo sëñ Balla Coro mu ñëw mu ne ko demal wol ma commandant bi booba commandant et moom paal moo nekk Njaaréem ku dem ci kasatu sen cheikh fatta ko da nga fekk mu leral ko lu gëna a leer ñi wax ndax neer bobu ma ngi taxaw jégué juroom ñetti mètre cheikh amadou mustapha bi ñi indi sëñ bi touba ñew njaareem la des ñi naan da ñew ba ndula mu do ko yëgal di di wàññi ko cheikh mustapha neena lolé musu ko dem ndax neena lolé du jom ci mom te kon ak ragal lay niru te mom du ragal kon lolé pass pas la ndax neena da bëggul bi touba bi ñewé di japp fekk ko fa waaye ndax nee na histoire mën na koo duura ba léegi ne Cheikh Moustapha dawoon yóbbu baayam da koo nëbboon tubaab bi mu jël Cheikh Abdoul Bachir teg ko ci bopp yoon wi jox ko sëñ bi des njaareem jël otaam jox ko sëñ Abdoulaye Diop lew na ne ko lu guddi guddi na nga dem Daarul Muxti ne bàyyi Ceerno tam doon liggéeyale nga jëm Tuubaa te bu mu ko fa jiitu maam Ceerno yëg na ko moom it ci baatin ba teel a tëdd ne ku fi mën a ñëw ku mën a doon bu ma gis sëñ Abdoulaye Diop lew mu ak see ma nuyu bi de tëdd newoon na bëkk kenn gis nee na ma ne ko may de sëñ Modou mu yónte ne woon ma lu guddi guddi naa gis maam Thierno nee na ma ñamal bëkk néeg li ma tax a jóg nee na mu ne feteet ak yuux na ma yëkkati ko dóor ci suuf ko xoj ba mu ne bàyyi maam Thierno ubbi na doon ma ne ko man la Ablaye Diop lew na mu ne ma xanaa kon doxoo jàmm nee na ma ne ko sëñ Modou nee na sa mag ju baax ja nga doon liggéeyee nga jëm tuubaa te moom la fa jiitu nee na maam Thierno nee na dënn bu ko fa doon togg ab laax war naa ñor mu siggi ne ma Ablaye Diop ndax njaare mu tajaari nee na ma ne ko sëñ Modou day Touba la wax maam Thierno ko wax nga dëgg de fi mu ne de mooy sëñ Touba nañ def li mu wax sëñ bi damaa batale woon rek ci mu bañ a des njaare waaye sëñ Modou mat na la mu doon daal dugg ci atam sëñ Modou Moustapha bi ab safooram taal otaam topp ci sëñ mën Ndioum mi ñi ngi ñaaxeen di dund ba naga ni nee na 1930 bi maam Cheikh Anta di sëñ Modou Moustapha dëkk boobu ba naga ni ma nga fa dara ump ko fa bi sëñ mën Ndioum boo demoon ñaaxeen tey moo xalaat ne lii may wax ci lu gën a leer nee na sëñ Abdoulaye Diop lew na moo ko nettali ne ko keroog bi ma ànd ak maam Thierno ba tolloo tey station Daaru Xudóos bi nekk boobu sax xawin dara dara ma nekk àll bu lëndëm rek la nee na mu yem ci kuy jàng jaalibatu maraaxib maam Thierno taxaw laaj ko ne ko gisatu lu mel ne oto mu ne ko séen naa lumière bu jam de bu jóge woon ci boori Njaaréem dugg ci këru bayti sëñ Abdoulaye Diop lew nee na Cheikh Moustapha ba mu doxee ñetti jéego waat na ko ne ko bu ñu demee ba toll ci denc sëñ bi ndax daa fooroon ci bàyyi ceer ceerno bu xawee bàyyi barab ba na nga dem ba tolloo moom ciy teggin ne ko borom bi newoon na bi bébbu ngoon ga la barabu sëñ Tuubaa bii mooy kepp keppaaru ngoonu bégg béggoo gi bàyyi rim soo moo ko daggoon ci le 22 février 1928 bi ñu tabax jumaa ji béggoo gi ci lañ ko daggoon